jërëjëf Pierre Da Silva ci régie bi ak ñom Pape Maguette ñi ngi leen di euh, gërëm bu baax ci euh, liggéey bi nga xam ni yéen a ngi koy ànd ak euh, télévision Futur Média ci plateau yi nga xam ni daanaka ci suba ba léegi yéen a ko ànd ak ñun. Euh, ci émission bu mujj bi ngeen àndoon ci ak euh, Chérif Diop ci gan yi nga xam ne àndoon na ci ak euh, yéen bokkoon na ci la ministre Serigne Mbaye caam ak ki nga xam ni mooy Moustapha Sarré bu Pastef ak Khady Fall Tall ñooñu ñëpp nekkoon ay ganam ak Souleymane ñaam mu nekkoon débat bu amoon solo nag wax dëgg yàlla gannaaw bi nga xamee ni président de la République àdduna ci li nga xam ne mooy tolluwaay réew mi ci loolu nag bi biñ ci génnee ci la ñu tànn koo xam ni jàpp nañu nag ni moom askan wi itam yittewoo nañu xalaatam wax dëgg yàlla ci xam-xam boo xam ni yàlla may na ko ko euh, ci wàllu politique waaye itam ci wàllu xeltu ci dundinu askan wi ci tolluwaayu réew euh, muy ci réew mi muy ci bitim réew euh, ñu ràññeeku bu baax muy Babacar Justin Ndiaye moom la ñu fas yéene àndal tey mbokk yi décrypté ak moom lu bëri ci li nga xam ni moom moo fi xew ci ayu bés bi ñu génn ba mu jur ay discours yoo xam ni dégg nañu ko Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. Mhm. Euh, monsieur Ndiaye euh, am na ay discours yoo xam ne dégg nañ ko fi bu ci jiitu mi ngi tukkee ci ministre de l'intérieur euh, dégg nañ itam boo xam ni Ousmane Sonko def na ko dégg nañu boo xam ni président de la république Macky Sall itam def na ko muy ñetti discours yoo xam ni mën nañ ko jàpp donte am na yeneen yoo xam sax dugg na ci dégg nañu Idrissa Seck loo xam ni wax na ko moom itam ci discours am naka noonu ki nga xam ni mooy Karim Wade ko jiitu acteur politique yu bari yu fare ci ku jëkk politique yi àddu waaye dama bëgg ñu tënk rek ci yenn discours yi waaye xam naa ni bi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee mooy bi président de la république yëkkati ndax d'abord c'est le président de la république mooy discours bi gën a officiel boobu la ñuy tàmbalee ndax déglu nga discours bi président yëkkati euh, ndax li nga dund ci fan yi ñu génn discours am ndax rassuré na la ci euh, bi nga ko déggee Babacar. Euh, jërëjëf avant ma ñëw ci waxtaan wi bi xuus ci damay def benn préambule maanaam euh, wax lu am solo loo xam ne lii dañ ma ko euh, yëgal mu jóge bitim réew te jëm ci li xew ci réew mi te su ko waa bitim réew waxee loolu wane na ne dëgg dëgg dëgg Sénégal am na euh, une place ak une présence en Afrique boo xam ne bii am na solo te naw nañ ko dama am des amis burkinabé des amis nigériens des amis maliens yu ma doon téléphoné au plus fort de la crise di ma yëgal ne ñoom non seulement am nañ jàq-jàq mais am na koo xam ne kii c'est un haut cadre des douanes du Mali daf ma ne dama leen di ñaan yàlla di leen ñaan di leen ñaan di sukk di leen ñaan sénégalais yéen bébu leen tàbbi ci coup d'état nee na ma sax je préfère cinq coups d'état par semaine au Mali à un seul coup d'état dans l'histoire politique du Sénégal te moom jàmbur la mhm. te da ngay xam ne réew yooyu ñun gënuñ leen ñun ñëpp nous sommes des pays africains souverains indépendants avec hymne et drapeau mhm. su nit ki nekkee ci biti dal di la considérer comme phare considérer la comme lumière considérer la comme locomotive considérer la comme aiguillon normalement waroo koy décevoir kenn ki sax il m'a dit une expression boo xam ne bii elle est non seulement impeccable mais elle est fabuleuse parce que daf ma ne le Sénégal c'est la fierté institutionnelle de ah, l'Afrique. il est burkinabé ou le malien. malien malien toujours. mu ne ma c'est la fierté écoutez bien l'expression c'est la fierté institutionnelle de l'Afrique. Mhm. ce qui veut dire que nous nous avons échappé à l'épidémie de coup d'état militaire en Afrique depuis 1960 bi léegi. ce qui veut que bon quand la corde est raide. il ne faut pas tirer davantage parce que soo ko xëccatee rek dafay dagg yàlla sutural nañu ba une rupture dans le fonctionnement euh, des institutions n'a pas été observée alors moo tax nag euh, message boobu il fallait que ma wax ko Sénégalais yi won leen ne yéen li ngeen am dafa rëy boo xam ne bii dañ leen naw ci biti nous avons un héritage fabuleux Papa Ngagne 1960 le Sénégal avait comme président un agrégé. Mhm. Au moment où au Tchad, on avait un moniteur, François Tombalbaye. Au Mali, un instituteur. Au Niger, un instituteur. En Guinée, un ouvrier sans diplôme. En Côte d'Ivoire, un médecin africain. Pas métropolitain, mais africain. Donc un médecin euh, au rabais, entre guillemets. Alors, c'est vous dire donc que ñun yàlla daf ñoo bénir. li ñuy wax bénédiction ci tubaab. ñu jóge ci président euh, agrégé en 1960. ci réew moo xam ne ñu amoon baccalauréat sax bariwul. ñu am président boo xam ne il est sorti de l'ENFOM l'école nationale de la France d'outre-mer. Abdou Diouf Abdou Diouf. Mhm. ñu jógeeti ci am koo xam ne kii il est agrégé des ouais. universités doyen de faculté. Mm -hmm. ancien président du comité des experts de l'OUA. muy mhm. Abdoulaye Wade. Mhm. léegi ñu am un ingénieur. donc ñun amuñ amuñ moniteur amuñ un facteur DPTT comme Amadou Ahidjo au Cameroun alors héritage bu mel noonu soo ko amee boole ko alternance yi ñu am ñëpp dañu war a jël héritage boobu naw ko def ko tableau de bord kenn ñun waruñoo naw sax Rwanda parce que Rwanda pour man c'est l'anti-référence pour le Sénégal ça peut être une référence dans bien des domaines mhm. rigueur dans la mhm. gestion mhm. propreté du pays et waaye nag dama lay fàttali ne moom dafa créer un mouvement armé le front patriotique xeex a xeex ba ñëw toog bon légitimité am jógewul ci les urnes di tegalee mandaam nu ko neexee <coughs> bon rax ci dolli aussi c'est un militaire au sens plein du terme bon boole koog réew aussi dafa am trajectoire historique boo xam ne ça n'a rien à voir avec celle du Sénégal le Togo aussi parce na yoo xam daanaka euh, il faut ñu commencé cee xoddeeku. Mhm. parce que yaa li ñuy wax l'effet de contagion. Mhm. xam nga Faure il est resté là il est jeune. Mhm. yàgg na fa lool bi bàyyam dee dafa toog. am na ñoo xam ne itam ñu ngi def sauter les verrous constitutionnels di def trois mandats quatre mandats et cetera. dama ragal nag effet de contagion. parce que Sénégal dafa niroowul ak réew yooyu. mais point boobu danañ ci dellusiwaat mais li ma la bëgg li ma bëgg wax nit ñi. préambule bi am na solo. ku mel ni Faure. c'est l'anti référence. Faure lii muy def soo gisee mu mën ko te dara yënguwul c'est qu'il est à la tête d'une armée tribale et familiale créée par son père. mais l'armée togolaise c'est une armée de cabillés. Mm-hmm. des gens du nord de l'Amakara. Mm-hmm. créée par le père qui a fait un coup d'État en le mhm. premier coup d'État en Afrique. Contra contrairement à Issoufou Niger. voilà moo tax contrairement xam nga aussi le président Macky Sall est jeune. Mm-hmm. le président Faure est jeune. Mhm. Faure mun na def vingt mais fii c'est in impensable mhm. effet de contagion nag dafa bon parce que parallèle moo gën a bon ci domaine yu mel nii parce que les trajectoires historiques des pays ne sont pas similaires bon nag pour me résumer de l'extérieur on nous regarde de l'extérieur naw nañ ñu de l'extérieur ñu ñuy ñaan di ñu ñaanal yàlla ne buñ basculer tey bu ñu basculer suba ndax ñun ñooy phare ñu ñooy aiguillon ñun ñooy locomotive mais loolu rek dafa doy donc au Sénégal ce qu'on doit faire c'est avec un grand H et non des de petites histoires ñun devons faire l'histoire dafa mel ni rôle boo xam ne bii yàlla moo ni ko assigné man sax je préfère faire l'histoire plutôt que de garder indéfiniment le pouvoir soo defee l'histoire rek tu entres dans l'histoire dans les manuels scolaires bi léegi le général de Gaulle bi léegi kenn du ko fàtte comment on l'appelle le plus illustre des Français te il n'a même pas terminé son son deuxième septennat mm-hmm. il a quitté en 69 il n'a même pas terminé un deuxième Mobutu a fait cinq mandats. Mais alors, avec quelle trace dans l'histoire Il est mort à Rabat seul, dans la solitude. Deux policiers marocains en civil, plus ses deux épouses. ñoo ko suul bon mais enfin c'est pour dire que damay artu yàlla nañu yàlla suturaal dimbal ñu ba nga xam ne li ñu Afrique sas ñu mérité ko. loolu laa bëggoon def comme préambule. d'accord. mu nekk préambule bu nekk bu am solo entrée en matière. Mhm. Euh, boo xam ni euh, yaakaar naa ne ñi la déglu itam xam nañu ne am nga yéene ci Sénégal. Mhm. parce que ni nga waxee am nga yéene ci Sénégal mais am nga yéene itam. Mhm. ci ki jiite Sénégal. parce que ku wax li ku dégg li nga wax li nga junju mooy bëgg nga mu mu des ci histoire. ba romb li nga xam ne mooy histoire yi nga xam ni voilà yu yu mel ni nga xam ni moom la ñu génn alors. léegi nag ñëw ci discours bi. ci discours bi discours bi comme ni ma la ko waxee. Mhm. Euh, ndax ndax ndax am nga ci satisfaction ndax gis nga ci sa bopp ndax loolu nga doon xaar ci contenu discours bi. Euh, man sax suma satisfaction personnel amul solo lool. Mhm. li am solo moo di euh, le sens du discours la substance du discours l'orientation du discours looloo am solo. ma satisfaction personnelle elle peut être subjective li am solo moo di. mais attente rek laay laay wax xam naa ni amul solo mais par exemple soo gisee ni réew mi mel danga naan bëggoon nga par exemple président indi discours bu mel nii bu mën a indi jàmm wala bu mën a indi am na loo doon xaar jombul. xam nga euh, crise bu mel nii. waaw ni ni mu ngande ni ko xale yi waxee. Mhm. ni mu rëyee ak lim laal ak li mu yëngal discours boo mun prononcé dana des et le discours a été un discours. vecteur d'apaisement parce que dëgg-dëgg soo ko digg lu nga xam ne dafa bëgg apaisement et et un discours aussi de bonne taille parce que guddul. Mhm. ndaxte réew mi fi mu toll téye nit ñi di wax wax ju dul jeex aussi itam. Mhm. nit ñi xaaruñ ko. Mhm. te président am na xel moo xam ne sax yàlla def na dafa wax ju wax ju eewi wax ju yem. parce que la taille du discours qu'elle soit la taille sonore ou la taille écrite parce que surtout liir naa ko euh, sur la taille du discours el n'a pas dépassé quinze minutes. allégé Savard même su nekkee jot na quinze mot na quinze minutes. ce qui veut dire que bon euh, ça été bien condensé bon li ci biir nag moom euh, am na solo mais crise bi dafa tollu foo xam ne fii am xootaay boo xam ne fii am yàq-yàq boo xam ne bii def na ko discours boo mun prononcé itam ce sera toujours en deçà waaye li am solo rek moo di euh, li ñu wax naan. avant la chanson il y le ton de la chanson. Mm-hmm. et il a donné le ton de la chanson. Mm-hmm. soo dégloo discours bi. Mm-hmm. wane na dëgg dëgg. il l'a même dit je vous ai compris. ce qui veut dire que moom ci boppam nee na dégg na. li li li événement yi junj. te comme am na nopp. am xel ne dégg na ko. alors loolu déjà. d'accord nañ ko noté. ok nee na dégg na ko bu baax a baax. d'accord bien entendu nag. Mhm. Mhm. ça ne veut pas dire que. amul aussi loo xam ne lii mun nañ ko cee waxaat mun nañ ko cee yokkaat mais loolu. ci biir discussion yi. quand on va faire la radioscopie de la crise loolu dinaa dinaa si ñëw ak yow. mais ci timing bi waxuma ci timing durée bi. Mhm. mais ci moment bi mu defee discours bi parce que événement yi daanaka mi ngi tàmbali le 3 bi nga xamee ni Ousmane Sonko mi ngi dem ci euh, euh, tribunal. Mhm. boobu ba léegi yaa ngi doon dégg ñuy wax président na génn wax. ndax yow bokkoon nga ci ñi jàppoon ni moment boobu dafa doon génn wax wala moment bi mu génnee def discours am mooy génn mooy moment bi nga xam ne ci la ko war a defee pour yow. parce que moment bii dëkk bi tàkk fitna gi am. dee di bari moment boobu ñu bëri seen discours seen wax yëpp moo nekkoon président dafa war a génn wax ak askanam ba tey la koy doog a def ndax jàpp nga ni lu lu retard la wala peut-être euh, calendrier am la wala ban gis-gis nga am ci moment bi mu defee discours bi. xam nga la gestion d'une crise <coughs> n'a rien à voir avec le commentaire d'un événement ñu ngi toog fii di commenter événement. Mhm. mais ceux qui gèrent des crises ñoom ils sont en face de réalités très complexes. Mhm. que euh, le général de Gaulle bien daan na wax ne. c'est dans c'est face à l'orage que l'homme d'État révèle sa stature mm-hmm. donc gis nga gouverner mm-hmm, mm-hmm. gouverner euh, dans le train-train quotidien la ku ne mën na ko mais bu fitna amee maa ngi ñëw en période d'orage nag ci ngay xam ndax nit ki il est à la hauteur il peut faire face à la bourrasque il peut faire face à la tempête il peut faire face au typhon alors moo tax nag crise bu mel nii aussi juger ci yomb na naan waroon na wax démb waroon nay wax tey mais lu ci am solo daal moo di c'est des crises yoo xam ne c'est très difficile à gérer surtout moom position bi mu parce que ñun nous sommes dans une posture un peu plus aisée. nous nous, nous regardons l'événement de loin avec avec un détachement. et avec euh, euh, comment on appelle ça la, la mission de commenter. ñoom ñi nga xam ne nag ils sont dans le feu dans la fournaise ñoom peut-être aussi ambiance bi bi ñuy vivre ñun duñ ko vivre donc je me je me j'éviterai de noter bien à bien lamentable faible et cetera bon là n'est pas la question. par par contre. Mm-hmm. li nga xam ne nag moo moo am solo. Mm-hmm. moo di euh, il faut ma njort ne. Mm-hmm. il a pris la mesure de de de la crise. parce que xam nga discours bi dafa am fond am forme. bon te it euh, la conjoncture obligé mu résumer ko mu gàttal ko mu yemale ko. ndaxte nit ñi suñ sonnee nekk ci fitna yu mel nii nekk ci dëy bu mel nii alors wax ju bari amu ci solo. maintenant nag man li euh, defe naa ne ci suma euh, njort il a fait le diagnostic. D'accord. Moi, je crois que quand on, quand on ira dans le diagnostic, mm -hmm. je vais vous donner mon voilà, de vue. Merci Ci loolu la ñuy ñëw sax parce que boo déggee discours bi bu daanaka ci introduction bi dafa aborder eh, problème mu justice problème mu daanaka dafa jël problème mu euh, Ousmane Sonko euh, du ma wax daf ko abrégé trop mais wax na ci euh, nee na nañu bàyyi justice def liggéeyam wax na itam regretté na ñi nga xam ne ñoo ci faatu regretté na aussi. yàqu-yàqu yi nga xam ni nee na jàpp na ni réeroo ci politique yàgg naa mais fii ñu egg mosuñu fa egg. Euh, alors loolu wax na ko mais li ëpp ci discours bi yëpp. daf ko jëmale ci euh, jafe-jafe réew mi tolluwaayu réew mi ak ndaw ñi ñàkk liggéey ba mu def ci ay promesse est-ce que loolu dafay wane ni li xew naa pour moom dafay wane ni li xew naa rien à voir ak problème mu Ousmane Sonko mais problème mu askan bi la ci ay doléances yoo xam ne moom daf ko war a régler te xam na ko dina ko régler. Hmm? Euh, secousse bi kenn waru koy def une lecture tronquée kenn waru koy def une lecture approximative kenn waru koy def une lecture biaisée. Mhm. donc ko war a song bu baax a baax a baax a baax wuutal ko saafara si nga xam ne moo war te mun cee jur jàmm mun cee jur aussi sorti de crise foofu nag ñu toll ci diagnostic bi parce que xam nga affaire bi soo ko xoolee affaire de mœurs la de prime abord affaire judiciaire la de prime abord mais xam nga lecture boobu c'est une lecture qui n'est pas fausse elle est vraie mais elle est étroite pourquoi une affaire de mœurs am ampleur bi ba nga xam ne les fondations de notre État ont vibré elles ont été ébranlées ah bon egg na foofu. oui dans les de notre État. non non j'ai j'ai oui, oui, les fond. Oui, est-ce que egg na foofu aussi Babacar je, je pèse bien mes mots les parce que xam nga un désordre n'est jamais petit. Houphouët-Boigny disait je préfère l'injustice au désordre parce que l'injustice peut être corrigée rectifiée. su ma amee dix francs yow nga am trois francs soo meree mun naa ekkatiwaat quatre francs jox la mbaa ma dolliwaat la trois francs. mais désordre moom su xesee bay ñëw rek ñëpp a war a tiit. Mhm. parce que xam nga fi muy commencé xamoo fi muy teere. Mhm. tout à l'heure je vous ai dit que la corde quand red est raide suñ continuer di tirer dafay dagg. Mhm. quand les les les les observateurs extérieurs les amis extérieurs. les autres africains. se penchent sur le dossier sénégalais. c'est parce que le problème avait revêtu une acuité extraordinaire. Bon, je peux retirer, si vous voulez, les fondations. Non, non, non, non, c'est juste une question. peut-être, je peux retirer les ah, fondations. Ah, d'accord, donc allez-y. Mais en tout cas, la secousse a été institutionnellement mm-hmm. tellurique. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, la secousse, elle a été institutionnellement tellurique. Voilà. Parce que c'est la première fois qu'on arrive à cette euh, euh, situation. Avec l'aspect sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire euh, des colonnes militaires en mouvement. Mhm. l'implication de l'armée dans dans le maintien de l'ordre mhm. alors que la loi martiale n'est pas proclamée. Mhm. alors qu'on n'est qu'on n'est pas dans une situation de sauvegarde nationale même si à un moment donné les inquiétudes étaient étaient étaient étaient légitimes. mais ma delluwaat ci diagnostic bi nga xam ne dama ko entamé woon. nee naa la un il y a un problème judiciaire. ça c'est la lecture vraie mais la lecture étroite. maintenant comment à partir d'un point judiciaire on est arrivé à une foofu nag la diagnostic bi amee solo te diagnostic bi su baaxee ci la thérapeutique bi baax. parce que su nekkee juum nga ci diagnostic bi rek soo moytuwul sa saafara du baax. oui oui tout or il se trouve que problème bi problème bii la. mais xam nga problème yi Sonko bi dafa nekk benn étincelle boo xam ne bii dafa dal ci benn jugement de frustration. Mhm. parce que dafa fekk nit ñi am yu bëri yuñ guux. mais yu bari yoo xam ne ñu ko guur seen lex ba fees. kon mooy ni ko président gisee ci discours am boo. dans une certaine mesure. Mhm. mais moi je voudrais encore aller plus loin que le président et être encore plus détaillé que le président. Mhm. parce que dans ce discours lui il pouvait pas aller dans les détails. Mhm. ndax discours bi dafa gàtt te euh, crise bi euh, am solo. mais nee naa la ni liñ guux dafa bëri. parce que euh, benn dafa am loo xam ne sax xeeb nañ ko mais am na solo. pam pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Sénégal, pour quelqu'un qui connaît les élites sénégalaises, qui, sont des, qui, qui, qui, ont à un moment donné représenté la crème africaine, notamment dans le domaine du droit. Entre les deux guerres, entre les deux guerres, on a eu un docteur en droit qui s'appelle Lamine Gueye. Après nos indépendances, on a eu des magistrats euh, de, de, de, grande carrure. des juristes de grande carrure ku mel ni Isaac Foster ku mel ni Ousmane Goundiam ku mel ni Ousmane Camara même Diallo Telli qui est guinéen il a été substitut substitut du tribunal euh, du procureur de la République à Thiès avant d'être secrétaire général du gouvernement de l'AOF Diallo Telli magistrat ce qui veut dire que bon fii c'est une terre de droit mais comment se fait-il que au moment où nous parlons il y a un flou constitutionnel autour du mandat du président de la République Ça semble être un détail. Mais pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Sénégal, ce n'est pas un détail. Mais, mais, mais, et ça, c'est malgré la limpidité littéraire de la Constitution. on non, a un flou. non ya ngi woon ci affaire bi jógee ci problème de mars. Euh, ba egg ci glissé foofu cela veut dire que damay damay ñëw ah. ci jugement frustration yi. li nga xam ne moo jur li dafa bëri loolu benn la ci. Mhm. maa ngi avancé. au départ c'est une affaire euh, de mœurs. Mhm. une affaire judiciaire. lecture juste mais lecture étroite mais cette lecture là il faut nga articuler ko à d'autres réalités pour mën a comprendre l'explosion mhm. nee na la d'abord c'est honteux pour nous Sénégalais qu'il y ait encore un flou constitutionnel autour du mandat du président de la République je ne le dis pas de façon subjective je le dis de façon objective parce que si tel naa la les magistrats émérites que le Sénégal a fait a vu naître sur sa, sur sa terre bon nag ñun façon yi dañ ko war ne dépassé. mais nag affaire constitutionnaliste la du affaire ay magistrat ak yooyu. c'est vrai ah, que justice. ngay wax ah, attends maa ngi ñëw aussi xam nga aussi euh, quand on gouverne un pays. Mhm. le premier réflexe c'est le réflexe de respect vis-à-vis euh, du pays. Mhm. parce que qui est souverain c'est le peuple. Mhm. qui est le vecteur de légitimité c'est le peuple. tout à fait voilà. alors su nekkee ni yu mel nii am na. te ñu observé ne il y a eu beaucoup de réformes autour de la constitution. Mm-hmm. il y eu un référendum qui a coûté ce que ça a coûté. Mm-hmm. alors bon nag su nekkee réforme am na référendum am normalement waroon nañ ci sur le terrain de la constitution ak sur le terrain du mandat waron nañ cee pare définitivement et de façon limpide. Donc. mais man li ma li ma li ma xaw a métti tuuti. Mm-hmm. moo di un pays en développement doit avoir des chantiers économiques plus prioritaires que les chantiers institutionnels interminables c'est-à-dire affaire yi institution ci war a pare fois. et de façon définitive. Ah, okay. Mais euh, pour me résumer rek je suis un peu peiné de constater que mon pays qui a été le, le, le, la patrie mm -hmm. d'éminents juristes ba léegi on a un flou constitutionnel autour du mandat malgré la limpidité, la limpidité littéraire euh, de la Constitution loolu aussi suñ ko intégré suñ ko intégré wut permettez-moi de vous dire que c'est un facteur de de, de de non seulement de frustration. mais un facteur d'incertitude. d'accord léegi ñu boole ko ci frustration yi après ñu. ñu jóge ci juste ci ci boobu aspect. ok ñu mhm. il y une succession de faits. Mhm. yoo xam ni yii Olof Ndiaye nee na tombé dafay indi ay gaaf. Mhm. xam nga Karim Wade a été mis sur la touche. par sur une base judiciaire. à l'issue d'un procès. Mhm. son casier judiciaire a cessé d'être vierge. Mhm. ñu rax ci dool yi il a perdu ses droits civiques. Mhm. je ne me prononce pas sur le procès loolu amoon amoon na temps li ci nit ñi waxoon leer na. demande sociale la woon ak yu demee noonu bon c' est une affaire qui a été applaudie au départ. mais à l'arrivée elle a été maudite mais loolu passé na. ñu jóge ci xale mu ñëw le cas de Khalifa Sall. il y a eu un débat sémantique d' abord caisse noire caisse d' avance prolongement judiciaire. il s'est retrouvé au tapis parce que moom itam sa carte sa euh, euh, comment son casier judiciaire a été souillé droit civique mu perte ko. Mhm. loolu yëpp c'est des bases qu'on peut considérer comme légales. Mhm. parce que tout ça s'est passé par le tribunal tout ça c'est le c'est le fruit d'un procès et cetera. Mhm. bon man je ne conteste pas ça mais dama lay yëgal ne tombé moo indi ay gaaf. façon bi agsi encore. le sentiment général te gis nga dama la bëgg a ne gis nga la perception parfois elle dépasse la réalité. comme on dit aussi que la fiction dépasse la réalité gis nga la perception des gens c'est important c'est une dimension qu'il faut intégrer les gens à tort ou à raison ont le sentiment qu'on balise la voie pour avoir un, une route à péage en direction de 2035 ou de 2070 bon c'est une façon de dire les choses avec un brin d'exagération. Mhm. mais avec tout ce que cela implique comme dose de pédagogie. c'est-à-dire wane nit ñi liñ. pas pas exagéré sax dafa bokk ci seen plan ñoom. waaw bon man nag 2035 mais non 2035 jékko jëloo ko noonu rek quand même. voilà waxoo 2035 comme ça noonu am na. foo ko ko déggee li ma gëm. waaw am na balisage boo xam ne su amee. Mhm. par des procédés judiciaires alors dafay téye xel te aussi euh, daal dëgg dëgg dëgg euh, ñun suñu histoire juru doon lii. Mhm. ma fàttali la ne le président du conseil le vice président du conseil constitutionnel a été tué. Mhm. affaire bi toll woon na foo xam ne fii. mënoon nay tas réew mi mais Abdou Diouf a mis la pédale douce il y a des moments où on convoque la grandeur en 93 avant la rigueur mhm. voilà il y a des moments où on convoque la grandeur avec avant la rigueur et il y a des moments où le salut du pays passe avant la vérité juridique ou la vérité judiciaire mhm. loolu tam léegi loolu tam ça fait partie des facettes et des et des et des servitudes de la gouvernance mhm. surtout de la gouvernance démocratique loolu itam daf daf ci am solo même le fait de dire je vais réduire euh, l'opposition à sa plus simple expression mhm. ça pose problème mhm. parce que gis nga opposition dafa am solo opposition soupape la amortisseur la su amatul vous êtes en contact direct avec le peuple comme ce qui s'est passé te du am du am intermédiation du am dara Ablaye Wade et Abdou Diouf on géré le pays jusqu'en 2000 en dépit des secousses il n'y a pas eu de basculement lu ko waral pourtant yàlla xam na ne la période Diouf était une période dure avec les ajustements structurels les Sénégalais ont serré et resserré la ceinture Abdou Diouf n'a fait que de l'ajustement structurel Ablaye Wade mënoon na exploiter ajustement structurel yi créé fi kaw mais gis nga jeu bi mu daan def léegi nag mu dem dugg ci gouvernement bi génnaat léegi-léeg ñu dugal ko ci ambulance mu dem Popenguine négocier ak Abdou Diouf génnaat mhm. léegi-léeg mu kii ça a sauvé le pays cela veut dire que tous les deux ont été responsables il faut dire aussi que Ablaye Wade s'il a pu jouer euh, cette partition très responsable d'amortisseur et de soupape c'est parce que son leadership était immense c'est pour c'est la raison pour laquelle aussi le leadership de l'opposition ne doit pas gêner le pouvoir le leadership de l'opposition ça peut être un excellent amortisseur pour la société parce que la gouvernance n'est jamais aisée surtout avec les crises yoo xam ne yi elles ont souvent des origines exogènes ok mu nekk beneen frustration de plus aussi boobu itam ti frustration mhm. la situation économique mhm. le baromètre a été au champ mhm. suñ tojee au champ nit ñi ceeb la ñuy jël ak diwlin maanaam lekk Ce qui veut dire que c'est le baromètre de, de, la, de la, faim, mmh. c'est le baromètre de la paupérisation, c'est le baromètre de l'indigence économique. soo demee xaalis sax duñ ko jël presque duñ jël ay parfum duñ jël saabu duñ jël dara ceeb diwlin ceeb diwlin ceeb diwlin rek la ñuy jël alors loolu itam il c'est un baromètre mm-hmm. qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut intégrer dans, dans, dans le jugement des frustrations, mm -hmm. dans le jugement des incertitudes, dans le jugement des doutes et dans le jugement des suspicions autour du troisième mandat, etc. Mm -hmm. Voilà le cocktail. boo xam ne bi l'affaire Sonko est venue et elle a fonctionné comme une flamme plutôt une étincelle mm -hmm. c'est tout mais en vérité euh, soo xoolee événement yi dafay am sax loolu loo xam ne daf lay xaw a waar mhm. Ousmane Sonko on a manifesté en sa faveur ou en tout cas la colère s'est exprimée parce qu'il n'est pas facile de dire que toutes ces manifestations là étaient en faveur de Sonko je ne sais pas trop mais même si Sonko a été le déclic li wër ce qui est frappant aux yeux des observateurs yi xam Sénégal Saint-Louis c'est une extrémité c'est l'extrémité septentrionale du Sénégal parce que après Saint-Louis est en bordure de la Mauritanie pays étranger Ziguinchor en bordure d'un pays étranger la Guinée-Bissau alors deux extrémités yëpp nañ en faveur de euh, d'un Sonko. nord ak sud. waaw Sonko vous vous rendez compte. Mhm. pour quelqu'un qui connaît les Saint-Louisiens. je ne veux pas insister sur certains détails mais les Saint-Louisiens ne bougent pas comme ça souvent. parce que Saint-Louis a une histoire avec cette famille de les citoyens les indigènes etc en, en général ils ne basculent pas comme ça. Mhm. pour la première fois dans l'histoire du Sénégal des Saint-Louisiens ont basculé en faveur d'un Casamance. alors là, ça aussi c'est, ça loolu naka la mun a amee parce que ce qui veut dire que bon certes Sonko a été un élément déclencheur mais il y a des problèmes de fond qui appellent des solutions et je crois que le président en disant j'ai compris bon il n'a pas tout détaillé mm-hmm. mais je souhaite que dans son fameux j'ai compris là loolu yëpp mu dugal ko ci voilà loolu yëpp mu dugal ko ci. alors ci discours am aussi le président dégg nañ mu wax ni eh, bëri na ay euh, émissaires chef religieux yoo xam ni seet si nañu ko wax na classe politique bi wax na syndicat yi wax na ñëpp euh, mu mel ni donc bien avant son discours médiation am na rôle boobu nga xam ni chef religieux yi notamment ñoom ah ñi ngi koy jouer ci espace politique bi. en général avant d'en arriver là vous me rappelez en parlant de religieux vous me rappelez un détail. Mhm. boo xam ne bi dafay compléter l'inventaire du jugement des frustrations et des et des colères de toutes sortes parce que affaire bi aussi suñ ko xoolee ba ci biir c'est c'est la justice qui est aussi en cause d'où la nécessité de restaurer la crédibilité de la justice je ne dis pas qu'elle n'est pas crédible moi je me méfie des jugements à l'emporte-pièce je me je me méfie des jugements intempestifs du ma wax ne réew mi amul justice nangam nag loolu c'est trop sommaire pour être vrai par contre li nga xam ne moom laa gëm moo di il y a nécessité de restaurer la crédibilité de la justice nga xam ne même su nekkoon ne am na lu desitam itam ñu gën koy renforcer waat. mais restaurer la crédibilité mooy mooy il a dafa perdre crédibilité maanaam. Mm-hmm. ju érosion érosion pas perte. érosion il y avait une érosion quand même. mais mais une fois que nga nga ngay solliciter restauration. Euh, euh. maanaam par exemple mu mu amaat gëddaam justice. mooy ñàkk na ko d'une part. Euh, non ah attention. on peut restaurer après l'érosion on peut restaurer après la disparition. d'accord mais man nag je maintiens okay. l'érosion. d'accord allez <laughs> bon d'accord bon cela dit. Mm-hmm. pour revenir maintenant aux origines. et et aux fameux gisements. xam nga euh, am na am na kàddu yoo xam ne dafay jib à un moment mauvais et malheureux. Mm-hmm. le 31 décembre le président a eu à dire il y a des Sénégalais qu'on ne peut pas arrêter. aïe aïe quand il a dit ça. j'ai tiqué et j'ai eu de la peine. Parce que, xam nga pourquoi moom c'est le gardien de la Constitution. Mais lui, il a dit pourquoi il a il a waaw parce que nee na suñu leen arrêté. waaw toj. d'accord mais attendez loolu loolu c'est son commentaire. dans un passé on a arrêté des gens te réew mi tojul mais je ne reviens pas sur le passé mais soo gisee wax jooju mu xaw a doy waar. Mhm. te xaw a ma di ko xëcc ci lii di ko articuler je vais vous faire la démonstration. Mhm. su ne moom en tant que président la gardien de la Constitution, garant de l'application des lois et des règlements dans ce pays. Mhm. li mu wax sax dëgg piir la. <laughs> mais c'est que dafa war génne ci gémmiñam ndax moom. Mhm. position bi mu ne moo tax. Mhm. parce que su ci génnee lim mun a jur. moo jur lii. te maa ngi ciy ñëw. ku ne xam na ne les xalif des principales confréries du Sénégal y en a pas beaucoup mais disons dix y en a même moins mais disons dix grande confréries ces xalif générou là xam nga ne jàpp leen ce n'est pas une opération aisée kenn kenn pour jàpp leen du neex te soo leen jàppoon réew mi yëngu mais heureusement aussi xalif yooyu nga xam ne tudduma seen tur te nga xam leen yàlla won nañu ne ñoom mun nañoo dund ba se wàcc liggéey ils ne seront jamais en délicatesse avec la justice parce que koo xam ne kii makkaanam maanaam fi mu dëkk ak jumaa ja loolu rek mooy circuit am su jógee jumaa ja mu nga këram su jógee jumaa ja mu nga këram yàlla may ko daraja joo xam ne bii ñëpp ko naw kooku kañ nay def infraction cest dire en théorie oui mais en réalité aucun xalif général dans ce pays ne commettra une infraction parce que bala ngay def infraction da ngay génn a ngay taxawaalu mais koo xam ne kii yaa ngi ci yàlla yaa ngi ci jumaa ji yaa ngi ci yàlla yaa ngi ci jumaa ji infraction doo ko def bon nag ñu écarté ñooñu nga xam ne ñooñu en aucun cas même s'ils sont égaux avec toi et avec moi devant la loi il se trouve que ce cas de figure ne se jamais. Mhm. parce que ñoom dañ dul def lu leen di eh, yóbboo devant la justice. Mhm. mais xam nga jamono bi président di wax naan am na ñoo xam ne kenn mënu leen a jàpp ci réew mi. Mhm. jamono jooju yaa ngi koy fàttaliku. daf fi amoon benn coow boo xam ne y avait une notabilité boo xam ne bi eh, eh, xawoon na koy laal. waaw alors mu wax ko. yaa ngi xa dégg nga bu baax li ma lay wax. bien sûr coow loolu. mooy coow yooyu amoon ci centre de rééducation yi ak yu demee noonu ñu ko. ñu la la mooy yi concerné woon Serigne Modou Kara. très bien mhm. moom ci ci jamono jooju la wax loolu. de telle sorte que à tort ou à raison nit ñi foofu lañ ko articuler mhm. léegi nag quelques semaines après l' Sonko ñëw ñu ne niip Sonko tëj. te pour quelqu'un qui connaît ce qui se passe en Casamance avec un vieil irrédentisme léegi les Casamançais quelle lecture vont-ils faire. dañu wax ne au nord du Sénégal il y a des gens qu'on ne peut pas toucher mais chez nous en Casamance on touche tout le monde et je vous rappelle qu'on avait arrêté l'abbé Diamacoune qui aussi est un religieux qui a été arrêté dans dans l'église euh, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue on est sous Abdou Diouf il a été arrêté et jeté en prison c'est un religieux en tant que prêtre il appartient à un ordre religieux adossé au Vatican qui est un État avec des relations diplomatiques euh, Sénégal ayant des relations diplomatiques avec le Sénégal alors xam nga soo ne au nord là-bas am na ñun munta laal même soo tuddul tur mais jamono jooju c'était l'affaire d'une notabilité religieuse ñu jóge foofu affaire yi Sonko ñëw nga ne ko niip ñëleeg soo xamee niñ mel ak leur vieille frustration là nga xam ne moo juróon rébellion beeg tout parce que la Casamance est une terre de vieilles frustrations multiples il ne s'agit de ne pas revenir je, ne reviendrai pas mais yàlla soo leen xamee nga xam ne ils on la frustration à fleur de peau yu mel noonu nag su amee dangay ngay dégg ñu ne ah bon su dee au nord am na ñu dul laal président moo ko wax mais su dee chez nous même l'abbé dañ koy jàpp ñëf ci kaso bi même l'abbé alors qu'un religieux est un religieux alors moo tax ma ne la ce discours là était était mal arrivé c'était tombé au très très très mauvais moment loolu aussi ci gisement yi la mhm. avant de continuer aussi il me faut rendre un hommage mérité aux forces de défense de sécurité gendarmerie et police. Ils ont fait preuve d'un professionnalisme qui nous a évité l'abattoir, qui nous a évité le carnage. Comme le président l'a dit, ni mu ko dit. Oui. il a raison, le président a raison. Il a souligné ce qui est vrai, c'est-à-dire le professionnalisme. Comme Ousmane Sonko aussi l'a dit. Moi, j'ai ñoom sax mën nañu wax ne maa ngi ñoom bokkuñ itinéraire. Mhm. ndax maa mag te maa leen sur le terrain. Mhm. non le président il a son J'ai été au Mali, j'ai travaillé dans la presse, j'ai été au Niger, j'ai été tous les segments de la population, tantôt avec les ministres, tantôt avec les bijoutiers, etc. Donc, man, ma connaissance du terrain africain, ñoom amuñ ko. Mais permettez-moi de vous dire que gis nga yi am fii tey su doon dans certains pays africains que je ne veux pas nommer, le Sénégal serait devenu un grand abattoir avec des morts à profusion. Parce que ñooñu Shimla ak Saala rek ñu génne Kalachnikov tiré. tu connais le yaa ngi fàttali ko le RSP de Blaise Compaoré avec le général Diendéré. Mm-hmm. dégâts yu ñu amul. Mm-hmm. alors ce qui veut dire que il faut rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité. Mm-hmm. qui sont extrêmement professionnelles qui sont patientes et qui gardent le sang-froid en tout temps et en toutes circonstances parce que maintien d'ordre sang-froid bi mu laaj fekk nekko ci doo ko mën a xam. d'accord maintenant l'armée que je mets de côté que je salue aussi. Parce que gis nga a une armée républicaine avec des cadres formés dans les plus grandes écoles militaires. Et en dehors de cette formation, certains ont fait une formation supplémentaire dans le domaine du droit, dans le domaine de l'histoire, dans d'autres domaines. Ce qui veut dire que donc, c'est une élite intellectuelle en uniforme. moo tax conneries yi ngay gis ci pays africain yi doo ko gis fi ma rax ci dolli ne euh, l'armée euh, ñun waruñ sax man kontaanu ma ñu di ko génne ci lii pourquoi parce que xam nga on ne coupe pas la salade avec une hache. on ne coupe pas la salade. bien avec une hache. ëpp na kay soo ko defee dafay ëpp. bien sûr on ne tue pas une mouche avec un marteau pilon. day ëpp waay ñii soo leen dugal ci maintien d'ordre li muy indi ëllëg doo xam lan la rax ci dolli aussi. parce que ñoom benn arm lañ yor muy fital. waaw. yoruñu liif yoruñu lacrymogène et puis mais dañ ko jàng jànguñu ko waaye c'est un art et une science ñoom ku ñu jàkkaarloo rek ennemi nga c'est à la fois un art et une science da koy jàng à l'école de gendarmerie di ko jàng à l'école de police mhm. jàng dëgg dëgg la même dans la police il y a des corps qui sont dédiés à ak des corps qui font le renseignement mais nga baal dinañ dellu soit médiation mais foofu nga toll noonu c'est important parce que soo déggee ma wax le discours bii nga xam ne tudd naa ko muy bu ministre junj na ba tudd wàllu terrorisme junj na ba tudd wàllu conspiration est-ce que du loolu nga xam ni moom am nañ information peut yoo xam ni amoo ko aw ma ko keneen am ko. Mhm. loolu est-ce que taxul ñu jël armée bi aussi teg leen. bon euh, rapidement xam nga armée soo gisee indi ko teg ko man mu xaw may euh, tiis tuuti nee naa la on coupe pas la salade avec une hache ma yokk ci ne aussi xam nga dans un état démocratique comme celui du Sénégal un président qui a premier tour. avec toute la légitimité bien claire portée en bandoulière, avec un parti qui, qui s'appelle APR, avec une, une majorité qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Alors quand on a autant d'outils, sim laak saala rek nga la nga actionner le levier militaire c'est comme si c'était l'unique levier qui répondait automatiquement et mécaniquement ana yeneen levier yi or ce levier là ça doit être l'ultime levier ça donne l'impression que bii rek moo ko dese c'est pas bien comme image pour une démocratie et pour un état de droit. Même si c'est un levier qui est sa disposition. Parce que la défense nationale, c'est la chasse gardée du président. La diplomatie, c'est la chasse gardée du président. donc lu ko neex mu def ci waaye nag dafa am loo xam ne nii comme je te rappelle toujours que on ne coupe pas une la salade avec une hache su nekk ensuite il faut pas donner l'impression que de tous les leviers c'est gis par exemple gis na ci manifestants yi ñoo xam ne dañu fital gis naa ko keneen gis na ko d'ailleurs le ministre de l'intérieur abordé na ko ci discours am bu ñu demee ba egg foofu d'ailleurs dégg naa sax le ministre des affaires étrangères ku mel ni ay Aïssata Tall Sall wax lu mel noonu itam <laughs> wax na lu mel noonu <laughs> mais est-ce que loolu jàppuloo ni euh. ñoom am nañu information bu war a tax ñu génne armée bi teg ko euh, euh, bon personnellement moi je respecte ces gens mhm. muy le ministre des affaires étrangères muy le ministre de l'intérieur pourquoi parce que ñoom position bi ñu nekk nekkuma fa Ah. Donc ils ont un volume d'informations que je ne possède pas. Mm-hmm. Ensuite, ils ont une mission qui n'est pas la mienne. Mm -hmm. Moi, je suis un analyste politique, je commente, je fais l'archéologie de l'événement. Nous, ils font l'histoire, c'est-à-dire eux, ils sont sur la brèche, ils montent au créneau, ils sont dans la fournaise. Donc nous, man mënuma lu dul suñu waxee de prime abord li ñu wax man euh, j'en prends acte. Mm-hmm. J'en prends acte. que ni lu mën a nekk la. bon mais mais mais mais. Euh... que ni nañ ñu. ñu warul bokk ci dugg nañu ci. oui mais xam nga aussi on est en politique. Mm et au départ c'est une affaire de mœurs. soo tëbee tëb aussi il y a les grands la là et les grandes choses là terrorisme ak yooyu ça suggère kii daal le nord Mali et tout c'est un peu gros. je ne dis pas que c'est faux. mais on aurait pu ne pas convoquer ça te régler ko la preuve c'est que réglé nañ ko avec le discours du président dans donc man je me méfie des gros mots et des grandes choses. donc réglé nañ ko pour yow. non non dans une déggoo ma ne dans une certaine mesure. ok man lu ma wax rek dama koy mhm, mhm. dans une certaine mesure. Mhm. je ne peux pas dire que le problème est résolu. mais le discours du président est un discours d'apaisement. le discours de Sonko aussi est un discours responsable et d'apaisement. même si Sonko a dit la révolution continue. il est dans son rôle. vous savez l'opposition a le ministère le plus agréable le ministère C'est le gouvernement qui répondra demain devant le tribunal de l'histoire. Sonko, jusqu'au moment où je vous parle, il ne gouverne pas ce pays. Mhm. Donc sa parole est libre. Il a le ministère de la parole. C'est comme, comme tout opposant. Mm -hmm. Ensuite, il sort du bureau du juge. Alors, il sort du bureau du juge. quand il dit la révolution continue, mais c'est quoi de plus normal Bon discours Bon, mais ça, c'est de la politique. c'est de la politique mais pour en revenir au sujet des, des, des du terrorisme ak yu demee noonu ah, man je nuance mm-hmm. et euh, je pense que mënoon nañoo bañ a yegg foofu parce que ce sont des choses grosses et des mots gros par maintenant dans dans, dans le prolongement de cette affaire il, il y a quelque chose qu'il faut souligner xam nga avant les événements là il y a eu une, intervention militaire en Casamance mm-hmm. couronnée de succès mm-hmm. Et là aussi, il y des interrogations. Mm -hmm. Les rebelles ont été défaits. Les cantonnements ont été récupérés. Les journalistes ont été sur place. On n'a pas vu de prisonniers. Mm -hmm. On ne sait pas s'ils sont arrêtés, embastillés, emprisonnés, gisuñu dara. Ce qui veut dire que de prime abord, les rebelles se sont évanouis. Donc mën nañ jàpp quelque part, c'est une victoire de 40 ans de pour Macky maanaam ndam la boo xam ni. bon mais loolu c'est le c'est le dossier Casamance dans dans dans sa globalité. te mhm. loolu c'est pas le sujet. mais dama la dama. non mais vous plaît li nga xam ni am na. Mhm. ci ci ci ci ci rebelle yi mhm. par exemple bu ñu demee ba comme ni nga ko waxee euh, fi ñu doon nekk ñu jële leen fa euh, ñu jóge fa est-ce que loolu mënuñu dekk jàpp ni loolu ndam la pour moom ci xeex boo xam ne ñu ngi koy xeex ñi nga xam ne ñooy fipp yi foofu ci Casamance. déggoo ma ne la une intervention allez les bases militaires euh, les bases les cantonnements plus précisément du MFDC ont été pulvérisés mais est-ce que les combattants du MFDC ont été pulvérisés point d'interrogation or pour quelqu'un qui connaît la configuration du terrain pour quelqu'un qui connaît le b.a.-ba de la tactique on est presque sûr que devant le rouleau compresseur de l'armée mhm. dañ dem Guinée-Bissau mais comme foofu it mënuñ fay toog ah, mënuñ dégg déglu foofu munuñ mën na jafe ci ñoom. non maa ngi ñëw. comme ni mu yombee woon ci ñoom. non pourtant da nga ma da nga parce que mhm. amuñ pexe. Mhm. quand tu es mhm. pour le naufragé même la queue du serpent est une bouée de sauvetage. mais duñ la fa bàyyi ñoom. justement parce que sax ñoom franchir nañ frontière ba mais comme Embalo suñu xarit la. duñ fa taxaw duñ fa taxawaalu. bon ce qui veut dire que bon après am na feneen côté yeneen côté yuñ duggaat. mënul nekk Gambie aussi. Euh, wala mën na fa nekk. cest bi opération yi sax c'est pas du côté de la Gambie. c'est surtout du côté de la Guinée-Bissau notamment notamment. Mhm. peut le sud. alors moo tax ma ne la c' est pour répondre à ta question sur le terrorisme pourtant maa ngi ñëw xam nga ñoom ils ont été défaits les cantonnements ont été pulvérisés mais le MFDC les combattants ont-ils été pulvérisés certainement pas alors ils n'avaient pas le choix la puissance de feu mun nañoo dugg en Guinée-Bissau mais duñ fa taxaw parce que en su ñu xarit la mais mun nañoo duggee nii génne ji boori Pirada génne ji boori Wasadou génne ji beneen côté ñëwaat dugg Sénégal loolu mën nañ moo tax ma ne la aussi quand le ministre de l'intérieur ak Aïssata Tall Sall parle de terrorisme. dugg biir Sénégal. mais fu ñuy dem. fu ah, mais loolu laa lay wax nii dugg biir Sénégal boobu bu fekkente ni am na. est-ce que du loolu moom mën na moom moom la ñu xam xëy na. moo tax xëy na ñu ñu joxe information. bi ñu wax parce que mooy li nga wax noonu. je suis en train de décliner une hypothèse. je décline une hypothèse parce que à partir des événements concrets l'intervention de l'armée les cantonnements récupérés les cantonnements pulvérisés. mais les combattants disparus. bu ñu fa nekkatul. te mënuñu ñoo yóbbuwaale ajaluñ leen. voilà ñu duggat Sénégal. voilà te ñoom mënuñu ñoo yóbbu arme lourde parce que mënoo koy watat mënoo yóbbu bazooka. parce que dafa diis foo taxaw ñu gendarme yi jàpp la ce qui veut dire que bon nañu dem daw ak arme légère dal di duggaat c'est pourquoi tu m'as dit que tu as vu des manifestants moi j'ai pas vu mais tu as vu des manifestants qui ont ouvert le feu di tiré ak yu demee noonu mm-hmm. ma ma ne on peut travailler sur cette hypothèse mm -hmm. mais je mais moi je ne franchirai pas le pas comme le ministre de l'Intérieur et la ministre des Affaires étrangères parce que je n'ai pas leur mm-hmm. naa ci am sa xalaat trop parce que mm-hmm. président abordé na ko ni mu ko jàppaloo ni donc médiation bi moo moo moo def moo indi accalmie bi wala peut naka la demee euh, nan nga gisee taxawaayu médiateur yi ci situation bi. xam nga euh, y a y les médiateurs y la médiation qui qui qui qui qui forme un bloc. te un bloc qui a été salvateur pour le Sénégal bu am njëriñ. Mhm. tout à l'heure j'étais parlé des amortisseurs du Sénégal. Mm -hmm. c'est c'est même indissociable du génie sénégalais. Mm -hmm. parce que ñun niñ bindoo yàlla moom la ñu bindee. am na réew yoo xam ne amuñ façon yii. am na réew yoo xam ne quand le président décide ou quand il y a des événements comme ça on ne peut rien faire on ne peut rien dire soo demee au Congo Brazzaville avec Sassou Nguesso quand il y une crise amul kenn ku mun a intervenir parce que niroowul ak fii fii on a même des chefs traditionnels en dehors de l'église et en dehors de de de machin de de de de la mosquée on a des chefs traditionnels du genre grand serigne on a des notabilités am na nit naw. am na ñuñ fonk et cetera y a le roi du souy donc fii on n'a pas un moronaba mais on a aussi des des, des amortisseurs mm -hmm. et des et, mm-hmm. bon nag les soupapes ont fonctionné mm-hmm. mais li manqué kay mooy la supap politique parce que comme comme comme on, on tente de le faire réduire l'opposition à sa plus euh, mm-hmm. euh simple expression c'est la supap politique qui disparaît mais là les soupapes euh, sociales et les, et les amortisseurs sociaux ñoom ñu ngi fi tey ils ont fonctionné à plein régime effectivement ils ont fonctionné à, à plein régime te am na solo lool mais aussi il y a pas que les médiateurs parce que les médiateurs ne bougent pas s'il n'y a pas d'événement mhm. il faut dire aussi que le rapport de force a été testé sur le terrain les, les amis de Sonko sont sortis les manifestations ont été grandioses et dévastatrices mhm. alors donc les médiations certes mais aussi le rapport de force a été testé sur le terrain mhm. ñoo ànd le rapport de force a été testé je crois que le gouvernement a pris la mesure des événements d' accord d' accord donc su ma la déggee daal mooy euh, xeex bi maanaam violence bi euh, manifester bi euh, moo gën a moo gën a moo gën a indi accalmie bi que médiation bi. bon bon je ne peux pas entrer dans les proportions pour 10 pour cent 15 pour cent 20 pour cent vraiment je ne peux pas entrer dans les proportions mais li wërte wër daal moo di les deux facteurs ont joué conjointement. et se sont prolongés dans, le, dans leur productivité. Donc rapport de force bi da nga jàpp ni donc. Euh, ah, ah, il a il a été testé. testé ah sérieusement testé. et ba pare encore dafa dafa dafa xaw dafa xaw a nekk ci euh, euh, côté euh, manifestants yi dañu gën a téye rapport de force bi maanaam ci ñoom la gën a féete. Ah, oui oui dans la mesure où xam nga euh, un gouvernement qui gouverne au nom du peuple chaque fois qu'il gère la colère du peuple il n'est pas à l'aise parce qu'on gouverne au nom du peuple. Le droit est dit au nom du peuple. La justice est distribuée au nom du peuple. Si maintenant il y a, il y a un segment important, et, et lequel des segments La jeunesse. Là d'ailleurs, on va parler de la structure déséquilibrée de notre démographie. Parce qu'on a une jeunesse. D'abord, on a une démographie galopante. Mm -hmm. Et elle est à la fois galopante et déséquilibrée. les jeunes sont une équation d'ailleurs que le président a évoquée. Heureusement d'ailleurs, avec insistance d'ailleurs, mm -hmm. avec des projets pour la jeunesse. Mm -hmm. voilà. C'est donc dire que il, il a, on peut dire qu'il a vraiment euh, compris le message. Mm -hmm. Alors donc, la jeunesse a été le fer de lance. Et au regard de tous les mécontentements qui ont concerné toute la société, okay. je suis sûr que même les médiateurs, ils ont posé sur... La... Bon, je n'ai pas été dans le bureau du président, mais je, je, je, je soupçonne et je subodore que, defe naa ne aspect yi ma wax yëpp am na ñoom itam dans les discussions avec le président ils ont dû brasser ça voilà. surtout la crise sociale et économique okay. so, d'ailleurs on a allégé le mm. dispositif euh, plutôt le, dispositif du couvrement du couvre parce que mm. l'impact économique était de plus en plus douloureux ok alors soo gisee ñu wax ci rapport de force bi ma revenir ci laaje la ko noonu mm. mooy dañu ko gis ci euh, Karim Wade du ñu wax nga ko léegi Khalifa Sall la même chose médiation aussi dañ ko ci doon dégg euh, ci ay ci ay xalif généraux yi nga xam ne ñoo gën a kawe mais terewul li ci war am yëpp ci justice daf ci am condamnation dafa am ba leneen leneen am ci kon dafa am différence ak le cas Ousmane Sonko pour yow d'abord le cas Ousmane Sonko est même pénible pénible parce que xam nga passez-moi l'expression les histoires de bin-bin les histoires de oh yeah, yeah. c'est assez, assez gênant c'est assez gênant La grandeur aurait commandé de dépasser ça. Mais la loi, c'est la loi. Et elle, impl elle est implacable. Mais, elle, mais, C'est une histoire de bin-bin ou bien c'est une oh, bin-bin, j'utilise un ah, cliché. J'utilise ah. un cliché, quoi. J'utilise un cliché. Ah, parce que beaucoup m'a yegg ci yenn mots mhm. mhm. un peu, un mhm. mais, euh, c'est-à-dire, il y a les bulletins de vote, il y a les bin-bin. Moi, je préfère de loin les bulletins de vote aux bin-bin. c'est-à-dire dès l'instant que une demoiselle comme ça euh, euh, déstabilise la République crée une secousse comme ça c'est même navrant c'est même navrant et, et je n'oublierai jamais la phrase du général de Gaulle quand il parlait à son ministre de l'Intérieur Roger Frey qui lui présentait un élément qui pouvait être accablant contre un opposant ça doit être Mitterrand ou quelque chose comme ça mhm. de Gaulle a dit il ne faut jamais humilier un citoyen qui pourrait être demain président de la République. Il ne faut jamais humilier un citoyen qui pourrait être demain le président de la République. Et je pense en faveur d'une thèse, sans en être sûr, parce que moi je suis loin de tout ça. J'ai écouté Maître euh, Sirek Ledorli, qui a dit que le, dans cette affaire, le président ne sait rien du tout. qu'il a été placé devant le fait accompli. Ça, ça engage Siré Clédorli. Mm -hmm. Mais comme Siré Clédorli est un avocat chevronné d'un certain âge, avec sa crinière blanche, mm -hmm. je le vois mal parler avec... Euh, mm -hmm. euh, alors je le vois mal euh, parler sans conviction. Alors donc, euh, je me dis que euh, quelque part, cette histoire, elle, elle est triste, elle est malheureuse, elle, elle est navrante. donc moo tax ma ne la crise bi boobu la crise yi euh, Sonko bi foofu la uuteeg bu ñoom Karim bi foofu la uuteeg bi ñoom bu ñoom euh, euh, Khalifa salle bi c'est-à-dire ici le point de départ est trop affreux et trop moche. Mm-hmm. mais la loi c'est la loi quand on parle de viol quand on parle de... mais encore une fois la loi pour tout monde. parce que le fait de dire encore une fois te yaakaar naa jusqu'à la fin de son mandat le président dootu ko waxati y des citoyens mm-hmm. qu'on pas arrêter loolu moom warta génn ci gémmiñam parce que on a arrêté aussi un prêtre en Casamance on a arrêté d loolu moom parce que l'équité territoriale am na solo parce que l'équité territoriale c'est économique mais l'équité judiciaire moo ëpp solo Papa Ngagne dans tous les pays du monde c'est pas moi qui parle chez Chamfort j'aime bien les citations c'est pas moi qui parle chez Chamfort ouvrez les guillemets dans tous les pays du monde il y a ceux qui ont plus de dîner l'égalité économique amul fenn man je peux accepter que Pape Ngagne roule en voiture moi je pédale mon vélo mm -hmm. Par, mais je ne peux pas accepter que Pape Ngagne et moi ne soyons pas égaux devant la loi mm -hmm. que Pape Ngagne roule en BMW moi je pédale mon vélo ça ne me gêne pas dans tous les pays il y a ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner li boo tax équité territoriale bi ñuy wax am na solo mais équité judiciaire moo ko gën mais équité judiciaire boobu es ce que du loolu la ñuy xaar aussi ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko malgré que kële député la chef de parti la mais kii itam citoyen la. mais lu lu président wax te lu nee na la justice continue son travail. Mhm. bon euh, apparemment aussi. euh, Ousmane Sonko ne refuse pas le procès. tout à pose-t-il des conditions et, et, et, et des modalités ça je n'en sais rien dafa ah, donc a dit donc nous Séné nous sommes attachés à l'état de droit. Mm-hmm. et ça c'est un motif de plaisir et de satisfaction. Mm-hmm. ça veut dire que le président en tant que garant du fonctionnement de toutes les institutions y compris l'institution judiciaire. dans une bonne mesure nee la justice doit continuer son boulot. waaw mais quel qui est l'accusé moom itam waxul le contraire. il n'a pas refusé le procès, mm -hmm. il n'a pas boudé le procès. Mm -hmm. il, il, il, il souhaite accélération. Mm-hmm. yow yaa ma ko wax. d' accord alors monsieur Ndiaye dama dafa am loo xam ne da ko wax par te c' est important c' vrai bu fekkente ni sax même hypothèse la. Mm-hmm. mooy euh, li xew Casamance ak MFDC parce que jox nga ma exemple ne ma bu ñu duggul euh, Guinée-Bissau mën ñu jaar fii jaar fële duggaat Sénégal mais bu ñu dugaatee Sénégal Casamance la ñu dellu wala mën nañu nag parce que ay sénégalais lañu. ay sénégalais lañ. par exemple bu ñu duggee ak seen ay armes légères comme ni nga ko parce que mënuñu yor kalachnikov wala beneen arme. loolu mënuñu yor mais donc arme légère la ñuy mën a duggee Sénégal. waaw loolu lan mooy risque yi. ou bien arme de poing. waaw lan mooy lan mooy nekk ay pistolet yooyu quoi. lan mooy nekk risque bon mais risque de sécurité surtout dans des situations comme ça yu mel nga xam ne y a la chien li parce que c'est dans les c'est eaux troubles que les pêcheurs en eau trouble pêchent. Et parfois, quand les eaux ne sont même pas troubles, les pêcheurs en eau trouble, les troubles pour y pêcher. Mhm. <laughs> Donc, euh, j'ai répondu à votre question. Effectivement, c'est ça. Mhm. C'est dans les eaux troubles que les pêcheurs en eau trouble pêchent. Et parfois, quand elles ne sont même pas troubles, les pêcheurs en eau trouble les c'est clair trouble ba pour d'accord alors ci loolu sax dafay tax ma ñëw ci beneen discours boo xam ni mooy bu Idrissa sac ci ci ci ci li nga xam ni moom moo. taxawaayam waaw taxawaayam dégg nga discours am euh, li mu ci wax yëpp fàttali moom fi mu jaar ci wàllu justice fàttali yenn. ñi nga xam ni tam ay ay euh, kilifa lañu woon ci ci réew mi justice soxla leen ak taxawaay bi ñu am euh, donte taxawaay boobu sax am na ñu jàpp ni bokkul ak bu Ousmane Sonko nga xam ni moom itam député la ab immunité parlementaire ak yépp waaye daf ko wax ni ko na wuy ji yoon su ko defee moom mu mën ci def médiation. ci wàll <laughs> xam nga Idrissa Seck. Euh, dugg na ci wax ji te loolu dafa laaj jàngat. xam nga Idrissa Seck lu la neex nga wax ko ba mu ne dafa doyadi mbaa amul xel mbaa muusul. li ci des yëpp mun nga koy accuser parce que doomu adama la comme yow comme man. def na lii def na la lii def na lii def na la lii jub na jubul yooyu c'est autre chose ensuite aussi c'est un homme politique comme tous les autres. et, et un grand homme politique d'ailleurs mën nga koy wax lu ne bem ne dafa doyadi mbaa amul xel mbaa muusul bon nag ce qui veut dire que lu muy def xam na ko d'abord ñëw na dans l'appareil d'État dugg ci te mu ngi nekkoon ci biti dugaat jëlaat na réew mi dugal ko dans la majorité présidentielle te mu ngi nekkoon ci biti ma fàttali na it ma fàttali la ne ñi tax président gagné en 2012 Idrissa Seck ci la bokkoon parce que moom it dafa xeexoon Ablaye Wade jàppale Macky Sall. Mhm. gannaaw bi la génn. dellusiwaat. Mhm. non seulement dellusiwaat dans la majorité mais dellusiwaat dans l'appareil d'État comme troisième personnage de l'État. Mhm. man nag jàngat bi ma ci am moo ñaar benn une affaire qui est pendante devant la justice Idrissa Seck c'est c'est l'appareil d'État et poste bi mu yore on peut rattacher ça à l'exécutif dans une attends ah bon c'est quand même euh, c'est quand un organe délibératif Mhm. c' est un organe délibératif parce que genre assemblée la. Mhm. waaye daal grosso modo il fait partie de l' appareil d' état. Mhm. et il se trouve que la justice. Euh, c'est l'appareil judiciaire. te nous tous nous chantons son indépendance ñu ne dafa indépendante dafa indépendante dafa indépendante. alors moom noonu mu wax dafa xaw a doy waar parce que su ne man mun naa jóg lijjanti ko en en substance waxewu ko noonu je résume quoi. alors mun naa jóg lijjanti ko ndax mun naa wax ak Sonko walbati dem ci président bi nga xam ne euh, j'ai son oreille nangam nangam. alors xam nga loolu aussi dans un état de droit c'est problématique mm -hmm. deuxièmement dafay mettre le président sax dans une situation inconfortable mm-hmm. parce que président moo wax Alain Foka France 24 ak RFI ne ko affaire bi xaw ma ci dara duma ci dugg mm-hmm. c'est des histoires de bas étage yoo xam ne man suma liggéey ak suma daraja ak suma hauteur du ma permettre ma di ci laal mm-hmm. yow na nga dikk ne man su ma jógee fii ci Sonko mun naa dem seeti ki nga xam ne moom moo waxoon ne xaw ma ci dara du ci dugal suma loxo nga ne da ko ci dugalaat mbaa nga dugalaat ci loxoom. ça fait un mais comme Idriss Seck lépp la ba mu ko doyadi man je me dis que aussi c' est l'homme politique qui agit parce que dans ce dans cette intervention et dans ce discours de Idriss Seck il un volet destiné à la consommation extérieure c'est-à-dire euh, certainement aux occidentaux il y a aussi un volet domestique mais soo xoolee Idriss Seck il avait porté dans ce discours le manteau de la relève maanaam il suggère que su yëf yi càngee ah man de mun naa ko lijjanti je suis une solution. À condition, à condition. Waaw. À condition. Bon, c'est des choses qui ne se disent pas. C'est des choses qui se suggèrent à travers l'intervention et les mots. Mhm. mais kenn du wax ne jóg leen ma toog man maa man maa war a toog de lu waxi dafa yooyu kenn ko def man ni ma liiree fii c'est que Idrissa Seck de la relève. Mhm. histoire de dire aux uns et aux autres que le défi de l'enlisement si enlisement durable il y a moi je peux relever ce défi. donc il il, il un, un médiateur maintenant le le le le troisième aspect. kooku moom waa APR ñoo ko moom. et c'est le côté honteux et pathétique parce que Idriss Seck il n'est pas de l'APR il est de Rewmi. Mhm. et son parti est né avant avant l'APR. Mhm. Rewmi moo njëkk a juddu APR. bien sûr. alors léegi nag moom mooy wëllu waa APR. APR ñoom itam lu leen dal ba Idriss Seck jóge fële leen wëllu ana ana ngonk yi ana ngand yi nekk APR ba léegi. Euh, loolu itam ça pose un autre problème c'est-à-dire le vide vertigineux autour du président mhm. non seulement les uns ont été remerciés les autres aussi mais le poste de premier ministre a été supprimé donc autour du président il y a un vide vertigineux mhm. et comme la nature a horreur du vide mhm. la politique davantage alors Idrissa Seck est venu remplir le vide mais nag c'est un peu honteux pour l'APR parce que voilà quelqu'un qui n'est pas de l'APR qui vole au secours d'un pouvoir au départ un pouvoir de l'APR bon Euh, ça fait c'est un peu kafkaïen mais c'est comme ça aussi il faut il faut il faut voir comme ça. alors ñu ñëw ci discours Ousmane Sonko. déglu nga ko mu nekk discours boo xam ni euh, wax nga ko ci bureau juge bi la jóge euh, daal di ñëw def discours am ndax jàpp nga ni génn tey rek def discours est-ce que noonu itam lu baax la bala ñu ñëw ci fond bi ñu ñëw ci forme bi ci timing bi mu ko defee est-ce que laajul woon mu gën a. xaar tuuti amuloon yàkkamti ak yooyu ndax ni mu ko defee bala ñu ñëw ci fond bi rek euh, nan nga gisee forme bi ak. mais est-ce que moom sax bokkul ci marché bi. parce que man j'étais pas door dama la koy laaj est-ce que bokkoon ci marché bi ci marché bi. non non bokkul ci gisuma ko ci bokk. Oh. il avait annoncé que ñëpp nañu dem place de l'obélisque mhm. mais comme aussi foofu amoon na échauffourée ba euh, mujj fa def déclaration mujj fa dem. bon déclaration fu mu ko defee. mi ngi ko defee ci. Euh, parce que moi j'ai suivi à la radio permanence am la ko ah, donc dans une ambiance beaucoup plus sereine. parce que est loin des grenades lacrymogènes. Mhm. Euh, entre nous grosso modo a été un peu comme le discours du président d'ailleurs quelque ci timing bi est-ce que par exemple ni mu ko hmm? ni mu ko même pas noppaluwul deful dara dafa génn ak quelques jours yoo xam ne yaa ngi ko nekk ci ay jafe-jafe et tout mais est-ce que yàpp nga ni ci moment boobu laaj woon mu def <laughs> mais mais je vous ai dit que euh, Ousmane Sonko comme comme certains autres hmm. Ousmane Sonko non seulement c'est un homme politique mais c'est un opposant hmm. et quel opposant un opposant farouche de surcroît alors mais moom ne serait-ce que sous forme de message en direction euh, de ses sympathisants. Mm -hmm. il leur démontre que moom il n'est ni fatigué ni épuisé ni démoralisé. donc loolu mu def non wax na ko sax nee na dafa xaw a fatigué. bi ah. discours bi jeexee. Hmm. wax na leen ni kii wax na ko que dafa xaw a. wax na ne ni je suis fatigué. mais il a démontré qu'il ne l'est pas. parce que ñëw na wax. Mhm. ku fatigué kay da ngay tëdd sa lal. Mhm. ñu même mhm. si le massage est un mot qu'il ne faut plus prononcer <laughs> mais mais mais c'est un homme politique qui est qui est qui qui qui est dans son registre. Euh, alors c'est, c'est non seulement celui de la mobilisation mais celui de la présence active wane ne man maa ngi nii affaire yi dara yëngalu ma alors je je suis d'attaque je suis à nouveau d'attaque yooyu rek loolu la bëgg a wane. ok en politique attention les signes extérieurs sont okay. importants. alors teg na ay conditions am nag jagleel ko Macky Sall wax na ko par exemple détenus yi ñu jàpp na leen bàyyi écoute téléphonique yi muy def. opposant yi na ko bàyyi troisième mandat bi na ci wax lu leer ak yeneen je pense mat na dix points yoo xam ni eh, wax na ko jagleel ko président de la république wax nga ma léegi c'est le ministre de la de la parole en tant que opposant mais aussi bu ñu jógee ci loolu rek pour jàngat li nga xam ne ay conditions am la ay revendications am la te nee na daf koy xeex parce que mi ngi demandé révolution bi bu mu arrêté na gën a dëgër chaque semaine bu ñu mënee génn ñaari yoon ñu def ko loolu yaakaar nga ni mën na continuer ak ndax mën na ci am résultat bu ko bu ko jëriñ dara bon xeex boobu euh, le résultat je ne peux pas préjuger. Mhm. mais lima ma xam daal moo di il est dans son rôle. bon je vous ai dit que euh, on est dans un dans dans, euh, dans dans un rapport de force. Mhm. qui est en test. Mm -hmm. et qui est en test d'ailleurs inachevé. Mhm. donc loolu c'est le prolongement du test du rapport de force parce que soo jógee fële ne yow tu veux dicter ta volonté alors que jusqu'à nouvel ordre il n'a pas les instruments. c'est Macky qui gouverne jusqu'à nouvel ordre xaw ma nu xew suba ak gannaaw suba il n'est pas l'État il n'a pas l'État sur les épaules il n'a pas l'administration il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale c'est un député parmi d'autres etc alors à, à telle enseigne que su poser condition yooyu mais daf lay orner il il fait de la politique il profite aussi d'une ambiance qui lui est favorable d'un rapport de force qu'il juge okay. favorable à lui mm ce qui n'est pas faux peut-être dans l'absolu mhm. mais est-ce que c'est suffisamment favorable pour que vous posez toutes les conditions qu'il veut mais il faut dire aussi que dans une négociation ou dans une épreuve de force tu places la barre au plafond mais maintenant si on vous donne satisfaction au milieu du mur mhm. nga ne ça va. alors ci revendication yi boole na ci par exemple. Euh, am sauf que nag entre nous revendication yi mu soulevé ça peut rencontrer l'assentiment de certains Sénégalais. Mhm. parce que dans une démocratie bon bon vous savez les écoutes et autre chose parce que ça ce sont des instruments à la fois techniques et, et policiers et tout le monde sait que qu'on soit opposant ou gouvernant on a besoin de la police. Mhm. bon maintenant les écoutes je crois savoir qu'elles sont ciblées. mais on n'écoute pas tout le monde. ne peut pas écouter tout le monde parce que ça coûterait cher. Deuxièmement, ce serait absurde du point de vue du résultat. On ne peut pas écouter le berger qui est là-bas à Ranérou. Euh, euh, à quoi ça servirait Donc je me dis que les écoutes sont certainement ciblées, mm-hmm. opérées par des professionnels. Mais il faut qu'on rappelle aussi aux Sénégalais, notamment aux opposants. Parce que parfois, quand ils se, quand ils se fâchent, ils disent des choses qui sont irréalistes. Un il avait dit quand je serai au pouvoir je, vais supprimer les fonds secrets j'ai rigolé j'ai compris que xamul parce que les fonds secrets là sont vitaux pour que la nation soit debout il faut des fonds secrets maintenant l'usage qu'on en fait comment on travaille là c'est un autre débat mais les fonds secrets en tant que tels doivent exister il n'y a pas d'armée il y a des pays où il n'y a pas de gendarmerie la gendarmerie d'ailleurs c'est un héritage Il y a des pays qui, ignorent jusqu'au mot gendarmerie. Mais encore que la gendarmerie comporte aussi faire de la police judiciaire. mais ce que je veux dire, c'est que la police est tellement importante que sur la planète, sauf que la carte du monde, il y a des pays qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas de garde nationale, mais tu ne peux pas me citer le nom d'un pays qui n'a pas de police. Police Montagnac. Mm Alors donc, même si nous gagnons police aussi, tu n'oublies pas que la police, moi, les gens disent la police nationale, mais moi je dirais la police d'État. Je préfère cette terminologie. La police, elle au service de... La gendarmerie est nationale, l'armée est nationale. Mais la police, en vérité, c'est une police d'État. Parce que dans, l'armée, il n'y a pas de police politique. Alors que dans la police, il y a une police politique. Il y a une entité qui qui qui s'occupe. police politique. parce que c'est-à-dire dama bëgg même su Sonko ñëwee moo tax aussi dafa am instrument yoo xam ne bu leen damm bu leen yàq bu leen ŋaññ parce que yow soo toogee danga koy soxla waaw on ne peut pas se passer de la police. mais mais comme moom benn système lay indi est-ce que yaakaaruloo système boobu. Euh, muy muy mu dem ba police ak yooyu yëpp ñu xoolaat ko. non assemblée nationale ak yooyu. pour l'instant il est opposant mhm. il peut tout coucher sur le papier. il peut tout dire mais au contact des réalités on verra bien. Mhm. j'ajoute aussi que gis nga entre l'aspirant au et le titulaire du pouvoir vous n'avez plus la même personne. li ma ne ah nga ko. Mhm. am na ñoo xam ne lañ doon wax ak li ñuy def tey du benn. Mhm. entre l'aspirant au pouvoir et le titulaire du même pouvoir. Mhm. vous n'avez plus la même personne. bi nga koy laaj ak bi ko jotee. voilà d'accord alors euh, ci doléance yi boole na ci. amnistie ñu delloo seen ay droit Karim Wade Khalifa Sall donte ñooñu ñu ngi ci opposition bi ak euh, comme comme comme moom est-ce que yaakaar nga loolu muy loolu muy loolu muy demander. su ñëwee est-ce que amul lu mu ko mën a yàqal ci avenir politique am ku mel nii Karim Wade ñëw revenir ak ses droits civiques et civils Khalifa Sall la même chose ñu bokk ku jëkk politique gi. <laughs> xam nga xam nga xam nga xam nga il y a le discours qu'on prononce dans des circonstances précises pour accabler un gouvernement sonal ko parce que moom mu ngi ci bëre mu ngi ci épreuve de force mu ngi ci rapport de force boo xam ne bi il veut que ça penche en sa faveur waaye nag nit ki lépp gëm neexu da xam. parce que déjà sonder les pensées dafa jafe à fortiori les arrière-pensées. li wër te wóor c'est que Sonko son adversaire c'est Macky Sall. mais il a aussi dans l'opposition des gens qui peuvent être jaloux. on est en politique. et chacun veut être premier. on est en démocratie on est dans des compétitions électorales. lui il arrive il y a cinq ans on ne connaissait pas Sonko. ou en tout cas très peu de gens, peut-être les gens de sa corporation, les inspecteurs des impôts, etc. Il y a cinq ans, il n'avait pas une audience nationale. Mmh. Alors, Légui, il est là. En un temps record, non seulement il a dépassé, il a coiffé, mais il a même effacé mmh. certains opposants, qui étaient des opposants de grande envergure. Il les a effacés, dans l'opinion. Je ne parle pas dans les journées, parce qu'on a les dernières statistiques des dernières élections. Mais aujourd'hui, il faut dire aussi qu'on ne peut pas retourner à ces statistiques-là. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je ne connais pas le poids électoral de Sonko. Je ne peux pas aussi en préjuger parce que j'évite de dire des bêtises. Mais li wër c'est que lui, il se tient li ni ko tubaab di waxee c'est lui qui tient le haut du pavé moom daal moo fës moo nekk ci kaw. Vous pensez que ça fait plaisir à certains qui sont ses concurrents? Mais il fait abstraction mel ni xamul ne des jaloux autour de lui pour bien accabler Macky Sall mu naan na Karim ñëw na Khalifa ñëw na Nangam ñëw. D'abord, c'est un joli discours mm -hmm. qui est bien reçu dans l'opinion. Mais au fond de lui-même, est-ce qu'il souhaite ça Moi aussi, je ne peux pas sonder son cœur. Hein. Mm -hmm. Sinon, je, je, ferai un procès, euh, comment on appelle ça euh, Un procès d'intention. D'accord. Voilà. Mais qui, euh, ci ci ci ni ñu gisee discours u président. Mm-hmm. wax na ni tàllal na loxo ñi nga xam ni euh, mooy opposition bi ku jég politique gi wala ku mën a doon bu buntam tëjuwul tàllal na loxo euh, lan la bëgg wax pour yow ci tàllal na loxo boobu euh, ndax dafa bëgg wax ni na jàmm am. parce que am na ñuy ruumandaat ay gouvernement d'union nationale parce que Ousmane Sonko tontu na ci loolu sax nit ñi ngi dégg lu mel noonu gouvernement d'union nationale mais moom bu ko ci kenn tudd parce que du mës liggéey ak euh, Macky Sall ci àddina alors bu fekkee moom dafa wax loolu kële tàllal loxo est-ce que mën nañu njoxtu loolu ñuy dégg muy gouvernement d'union nationale ne lu war a mën a nekk la ci situation bi ñu nekk pour yow. bon euh, liberté hors monde yi xam nga la main tendue président de prime abord on ne peut que te man dama ragal ne après ce qui s'est passé là sa main est plus que jamais tendue vigoureusement tendue et peut-être sincèrement tendue. Hmm. non je, dis à la lumière de ce qu'on a vécu. Mmh. comme secousse. sincèrement tendu. non, je, répète man je, je balance bien mes phrases. Mmh. ne à la lumière de ce qu'on a vécu comme épreuve. Hmm. dont il est conscient. dont il a reçu le message c'est lui-même qui l'a dit. Hmm. alors je crois que dans ces conditions-là je peux préjuger. que ça m'est tendu et vigoureusement tendu, proprement tendu et sincèrement tendu. Avant, j'aurais douté, mais après ce qui s'est passé, je peux y croire. Mm -hmm. Bon, mais je n'ai pas aussi un double décimètre pour mesurer la sincérité de qui que ce soit. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas de double décimètre pour mesurer la sincérité. Mm -hmm. Cela dit, maintenant, euh, gouvernement d'union nationale ou pas, cette main tendue du président, amna lu mu wone mooy li ma waxoon ci njëlbeen gi. Mhm. wone na ne il ne faut pas l'opposition à sa plus simple expression. Mhm. bon nag cela veut dire qu'il rectifie la tir. parce que xam na ni opposition dafa am solo. opposition réceptacle la. Mhm. day capter les frustrations dal di ko recycler pacifiquement et démocratiquement mais su nekkee opposition bi newu fi comme dispositif de captation des colères et de recyclage des colères recyclage pacifique et démocratique opposition bi su fi newul yëf yi colère bi su ñëwee président lay dal directement. Mhm. comme le poste de premier on dit que c'est un fusible mais en politique comme en électricité quel est le destin du, du fusible mooy njëkk a tàkk waaw sauter mhm. le destin du fusible est de sauter en mhm. politique comme en électricité mhm. alors euh, moom Ousmane Sonko actuellement ci euh, contrôle judiciaire la jël ah lañ ko teg. lañ ko teg ah, mooy mooy li nga xam ne moom. moom tànnul moom moom waaw tax je sais que tànn ko mais li ma bëgg a wax mooy jëlul mandat de dépôt contrôle judiciaire la jël. Ah, loolu laa bëgg a expliquer ah, foofu. alors euh, am na ay contraintes yoo xam ne juge bi teg na ko ko am na ci lu mu jot a junj. d' ailleurs te ku déglu discours bi xam ne respecté na li ko li ko juge bi wax. parce que nee na ko dossier bi bu ci wax. donte moom nee na ko bu ngeen ci waxee ma wax ci. mais fii léegi waxu leen ci man du ma ci wax. alors comme nee na ko loolu bul ci wax loolu njort nañ ni passeport am jël na ko leneen loo xam ne aussi am nañ ci yaakaar mooy dinay dem souvent ci ci juge bi di di euh, di di di di signer foofu wala di wane présence am que mi ngi fi loolu yaakaar nga ni am na lu mu ko mën yàqal ci ci politique am donte moom nee na acteur politique la euh, kenn du ko tënk. bon li li wër te wër c'est que euh, le contrôle judiciaire ça n'a pas commencé avec euh, Ousmane Sonko et ça ne disparaîtra pas avec Ousmane Sonko. Mhm. c'est pourquoi il faut avoir un respect scrupuleux des institutions. Mhm. parce que luñ fi tegoon la boobu Ousmane Sonko commencé gul sax di def politique. voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. ce qui veut dire que moom dafa ñëw euh, mu dal ci kawam te bés bu ko wàccee it mun naay dal ci kow keneen ak keneen ak keneen. Mm-hmm. te man gëm naa ne sax moom bés bu doonee président de la république am na yoo xam ne du ko mun a dindi lu demee ni ay contrôle judiciaire ak mise en examen yu demee noonu. parce que aussi il faut que que la justice fonctionne léegi nag li ci des moo di euh, naturellement le contrôle judiciaire c'est une semi-liberté doonatul liberté totale bi nga amoon avant avant d'être euh, accusé et avant d'être face au juge. bon nag ce qui veut dire que qu'on le veuille ou non. inculpation la. à défaut à défaut de de Damoclès on peut dire que c'est une c'est une demi épée de Damoclès. Mm -hmm. au-dessus de sa tête bon pour l'homme politique qu'il est. il mhm. va sans dire que ça gêne aux entournures. parce que mhm. féex bi nga féexoon dootoo ko féex voilà loolu moom c'est c'est c'est la réalité mais quelque part je crois que euh, soo gisee ñu def lii c'est que lañ lañ mënoon a def te loi bi permettre ko. te peut-être ñoom bëggoon nañ koy def suñ ko defoon li muy jur maanaam maanaam lii espèce yi saafara la. Mhm. parce que kii soo ko yóbboon rëbës mun naa mbir yi demee neneen. loolu ñoo ci teg suñu bët. ce qui veut dire que def lii itam euh, ñoom itam daanaka euh, ils ont joué xam nañ li ñu def. Mhm. voilà. d' accord dafa mel ni président la république junj na ko ci discours am ci introduction bi muy tàmbali. Mhm. que ni coow lii nga xam ne moo fi am li ci prérogative am mu téye ko ci ay loxoom li mu ci mën a def dina ko def. ndax loolu mën nañu njox par exemple lu bëri ci ay infraction yoo xam tegoon nañu ko ko euh, ci wàllu insurrection ci wàllu trouble à l'ordre public ak yooyu yëpp yooyu mën na mën na fi jógee peut-être kaawu viol bi nga xam ni moom c'est c'est autre chose yaakaar nga procédure bi mën a mujj ci loo xam ni du du compliqué xam nga euh, y a problème de fond et un problème de forme situation bu mel nii nga xam ne réew mi dafa yëngu il va sans dire que on peut on peut faire des entorses ak des dérogations à la règle générale mm-hmm. maanaam wax ci mais pour man sax le président war doone danaa def lii danaa def la yu demee noonu loolu du waru galam parce que c'est l'affaire de la justice bon on me dira que nag le président c'est la clé de voûte des institutions et que de mhm. toutes les façons réew am na foo xam ne su fa euh, tolloo moom mooy assumer mhm. même les juges ne peuvent plus assumer parce que moom rek mooy mun a assumer mhm. bon loolu c'est la constitution qui le veut ak et ces missions aussi sont des missions mais daal li ma gëm moo di yii waxi circonstance la rek moo tax mu teg ci moo tax mu yëy yàbbi ci mais li gënoon sax moo di du du ci du ci yàbbi mais le problème aussi c'est que soo ci su ci yëyul yàbbi ci apaisement du am moo tax situation yu mel nii xam nga c'est des situations difficiles à résoudre tu es obligé de prendre des des solutions qui sont un peu maanaam d'un côté tu tu tu tu dans le domaine judiciaire mais de l'autre aussi tu te dis que la sauvegarde de la paix am na solo d'ailleurs loolu sax ça me permet encore de revenir sur un détail de la constitution parce que xam nga nee nañ nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs man ma ne man ma ne dañ ci waroon a yokk loolu suma xalaat la dañ ci waroon a yokk un fragment de phrase waxuma sa une phrase de mais un fragment de phrase y compris le mandat en cours xam nga bon affaire bi daan na leer mais ba ma ko waxee y a des gens qui m'ont dit oui mais là ce serait de la redondance de la tautologie wala en aucun cas voilà en aucun cas comme niñ ko defee ci Niger mais la constitution en aucun cas waaw loolu rek loolu rek dafa dafa surtout y le mandat en xam nga la la constitution elle est écrite dans une langue d'emprunt. ñi ko fii làkk bëriwul. te mën nga koy làkk sax te tout temps ko même nous qui parlons plus ou moins bien français nous baragouinons mais est-ce qu'on est-ce qu'on le maîtrise comme Jean d'Ormesson certainement pas bon alors donc c'est une constitution écrite dans une langue étrangère. alors loolu nag man je préfère ñu yokk ci une phrase qui crée la tautologie la redondance. en résumé une constitution mal écrite. et qui installe la paix dans le pays. vaut mieux qu'une institution écrite de façon académiquement impeccable et qui prononce euh, le pays qui plonge le pays dans le chaos. Mm Qu'est-ce que c'est que l'écriture? Euh, qu'est-ce que c'est que l'orthographe mm-hmm. par rapport au salut d'un peuple et d'un pays? Voilà, c'est un peu des choses comme ça. D'accord. ñu jeexale discours médiateur de la République Alioune Badara Cissé. Euh, je pense suivre nga ko euh, mu wax euh, ci ci jafe-jafe yi moom itam daanaka xaw na am fu mu bokkee xalaat ak président ci wàllu jafe-jafe nga xam ne ndaw ñi ñu ngi koy jànkonteel bokk na ci li nga xam ne indi na fitna bi ak yooyu sàkku itam ñu fexe ba jàmm mën a am ak yooyu moom noo déggee discours am en tant que médiateur aussi de la République. bon xam nga moom sax il est un peu plus dans son rôle que Idrissa Seck bon parce que lui il est médiateur de la République il peut se, se saisir de tout presque. Mm -hmm. il s'y ajoute que moom xam nga ne moom it il est membre fondateur de l'APR. Mm -hmm. bon donc bon moom itam euh, le symbole est fort quand il s'implique. le discours qu'il a prononcé aussi est un discours très pointu très osé. Un, à la limite même un, un peu trop libre. Bon, tout ce qui n'est pas mauvais dans l'absolu d'ailleurs parce que dans dans dans des contextes comme ça euh, day am temps wax dëgg dafa baax. voilà donc man je pense que il est un peu plus dans son rôle que Idrissa parce que sa mission déjà porte bien le nom médiation média médiateur médiation tout ça bon euh, bi euh, APR la mais je crois savoir que les gens de Sonko peut-être ne verront pas euh, la casquette de membre fondateur de l'APR mm -hmm. d'autant plus que même dans cette APR là moom euh, <laughs> il n'a pas été des mieux servi mhm. donc ce qui veut dire que euh, sa bonne foi sa sincérité sa sa posture neutre mun nañ koy gëm d'accord voilà. voilà parce qu'il n'est pas couvert de privilèges. merci beaucoup euh, Babacar Justin Ndiaye bëggoon naa la gën a téye parce que namoon nañu la vraiment ci waxtaan ak yow te xam naa ne ñiy seetaan tam doyaluñu mais guddi na te bëgg nañ la bàyyi nga dem noppalu ji. je vous en prie euh, loolu moo tax mais bu fekkee am nga message boo xam ni danga koy passé rek ma bàyyi la nga nga nga. passé alors le message est un message de de comment on appelle ça de vœu. Mm-hmm. Euh, et de rappel maanaam euh, li ñu yàlla may. Euh, dafa rëy li li li yàlla euh, yenn Macky Sall dafa rëy dafa rafet ci héritage bi en tant qu'héritage moom il est le lointain successeur de Senghor après Senghor Abdou Diouf Ablaye wàdd ñëw na yàlla jox ko réew mi alors li ma bëgg rek moo di euh, ni ko suñ mbokk yi nekk ci biti yi waxee ñu fexe ba le Sénégal rest un pays phare mhm. un pays locomotive un pays qui montre le chemin à l'Afrique je le dis nag sans voir midi à ma porte je le dis sans nombrilisme parce qu'il faut aussi respecter les autres pays je vous jërëjëf merci beaucoup mbokk yi doon ànd ak ñun ci seen édition spéciale bi tey ñu doon ci ànd ak euh, Babacar Justin Ndiaye moom xam-xamam màcc na ci jàngat wàllu politique moom lañu doon waxtaanal ci discours yi nga xam ni tukkee na ci président de la République Ousmane Sonko ak ki nga xam ni mooy alin badra Cissé euh, ñu koy gërëm bu baax ci wuy si bi di leen jox rendez-vous incha allah ci beneen euh, jotaay bu ci àllande jërë ngeen jëf.